sëñ Saliou seexu seexu seexu seexu Saliou borom jàpp nag ndogal borom daara yi la gan borom umul xuraa borom jannatul maxwa seexu salaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci Ndindy Actu TV ñëwati nañ di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen wax ni gajoon nañ leen a gis namoon nañ leen bu baax a baax alors ñu ñëwati nag tey ànd ak Malick Fadal Fall ci seen beneen numéro ganuk bés bi ganuk bés bi nag comme ni ngeen ko xame ay gan yu mag lay am waaye tey am na geneen gan gu gën a magati macha allah mu di Serigne Assane xel Xelkom di taalibe Serigne Saliou mbake di bokk ci ñi nga xam ni Serigne Saliou Mbacke defar na leen ba ñuy defaree kon nag moom la ñu fas yéene àndal ci waxtaan wu yaatu xam ngeen ni bàyyi ko woon le 27 décembre 2007 euh, ci jamono yooyu kon la fi jóge woon tey nag ñu koy fàttaliku incha allah fas yéene cee ànd ak Serigne Assane Mbacke mi nga xam ni moom fu mu waxee rek xel yëpp dellu ci Cheikh Salihu mbake alors point yi ñu fas yéene waxtaan nag bokk na ci euh, ganek jamono Serigne Salihu Mbacke ak fan la ganee jamono ak itam euh, ku ko jàngal. xam nga loolu it dina yitteel lool ñi nga xam ni moo di mbokki taalibe yi dina dina tooyal seen xol ñu mën cee ko Cheikh Salihu Mbacké ak tamit Cheikh Salihu Mbacké kañ la sanc daara yooyu point incha allah ak yeneen yoo xam ne sëñ Assane dina ci ñëw ak ñun moom la ñu fas yéene waxtaanee ci Ndindy Actu TV di ko ziar Mbacké bala bu baax a baax ñu ngi lay ziar Mbacké ci ndindi Actu. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin ilmakin wa ala wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin ginnaaw ba ñu sante yàlla buur bi subhanahu wa taala ñu maase julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi sant cheikhul xadim di ñaanal sëriñ tubaa sëriñ muntaxa sun borom bàyyi ko fi ba yéene jim am ci liggéeyal ko cheikhul xadim yéene koo am liggéeyal ko lislaam yàlla ko sun borom dëbbu kattan mu sottal naali ay waajuram sottal naali maamam ba sumbaat yeneen naalam te sottal ko te ñu ànd ko moom te làq ci ngërëmal Cheikhul Khadim waaye ñoo ngi ziyaare itam Ndindi Actu TV di leen ndokkeel di site bu am solo di site boo xam ne lépp luy actualité ci àddina ñoo ngi ko ciy jàllale mu doon site bu bari njariñ kon ñoo ngi leen di ziar Ndindi nag soo ko waxee xel day daj ci Serigne Fallou ndax Serigne Fallou mooy borom dindi te kenn ku nekk xam na ni sëriñ fallu ak taalibe da koo ñoroon ndax soxna si yàlla dogal mu créé site bi soxna nday Mbàkke di doomi sëriñ Abdul Fattah moom sëriñ fàllu maanaam roy ak taalibe ak jàngalewaat maanaam mbindum maamam mooy li solo kon ñoo ngi koy ziar waaye di ziar itam sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Saalix ak mboolem njabootuk sëriñ Saaliw gépp kon ñoo ngi leen di ziar ci fekk gi ngeen ñu fekk si tey ci sunu barabu bopp ci géejawaay ñu nekk fi di fi liggéeyal Serigne Saliou kon ñoo ngi leen di ziar di leen ndokkeel bu baax a baax a baax jërëjëf. jërëjëf Mbacke ci euh, nuyoo bu am solo boobu kon nag Mbacke euh, dañuy daal di dugg rek ci waxtaan wi xam nga ni tey moom ki ñuy waxtaanee defe naa ni euh, Sénégal miin na ko Afrique miin na ko àddina miin na ko ndax jëfam ju rëy. mi ngi fi ñëwoon ci atum 1989 euh, bi fi sëriñ Abdoul Ahad Mbacke bi fi sëñ Abdoul Khader Mbacke jooy 1990 pardon ndax euh, sëñ Abdoul Khader xam nañ ni am at la fi def 89 euh, ba ba ba 90 Cheikh Salih ñëw ba nekk fi nag ak. taalibe yi ak njaboot gi ba 2007 mu suñu mu wuy ji suñu borom dem àjjana alors dañuy tambali comme ni nga ko waxee ci introduction bi Serigne Saliou Mbacké kañ la gën a jamono ak fan la gën a jamono. ci laaj bu am solo bii nga laaj wax naa ko ci barab yu fasantikoo ci ay média moom soo ko waxtaanee rek waxtaanee nga doomi Serigne Touba yëpp waxtaanee nga Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci Serigne Mourtada waaye waxtaanee nga itam soxna Fatija tawub Serigne Touba ba ci soxna May Saxiir caatum Serigne Touba ndax damay faral di wax ni. xëy na yàlla daa dogal ci yeewute rek maanaam tur yi waaye jëmm yëpp benn la kon waxtaane gii nga ñuy laaj ñu daje tey ci bés bu sell bii di bés bu yéeme di le 28 décembre bés ni tey ñu di ko toog di ko fàttali ko kenn ci njabootu Cheikhul Khadim muy jëmm ju màgg jëmm ju tedd di jëmm joo xam ne l'islam moo ko ñoroon di jëmm joo xam ne bi ñëwee fàtte na jur gi ko sëñ Tuubaa jur tal jaami yàlla yi ci kooku nag ci lañ bëgg waxtaane moom sëriñ Saliou waaye danaa def benn entre parenthèse tuuti ci ak taalibe ndax site bii mënoo cee waxtaan mukk te doo dellu siwaat histoire ci ak taalibe ni mu ñore woon Serigne ndax soxla si day sëtu sëriñ Fallou te sëriñ Fallou itam ak taalibe ñoroon ko wax nañu Serigne Fallou bés. daa toog ak cheikhul xadim ci njaarim ba mu yàgg daal di koy tàccu daa di ko ne waay mbàkke waay mbàkke lu dég taalibeeg fi yàlla ne sëriñ Tuubaa ne ko fàllu mu ne ko mbàkke ak taalibe laaj ko sa baay cheikh ibrahima fall waaye amaat fa yàlla nekk laaj ko cheikh maxtaar Diop mii toog sëriñ fàllu toog ba mu yàgg daal di ko ne waay waay waay maxtaar fu yàlla ne waay mu ne ko alaaji fàllu mu ne ko mbàkke mu ne ko xawma fu yàlla ne waaye sa baay bii xam naa ne fu mu nekk yàlla nga sëñ Tuubaa nag gees daal di ko ne maxtaar loo ko tontu ma ne ko mbàkke dama ko ne xawma ci yàlla dara waaye xam naa ni sa jëmm ji fu mu nekk yàlla nga fa kon ak taalibe lu ñoroon sëriñ fallu la ndax moo sababoon mu jëloonub njuréelam jur gi ko sëñ Tuubaa jur wax naa ko ci barab yu bare bare damay faral di wax ni kenn ku nekk buñ ne la woon jaayal sa bopp sëñ Tuubaa di sa waajur nga miras sa bopp yaag say mbokk kon loolee doxoon diggante sëriñ Tuubaa ak sëriñ fallu muy njureel loolee la sëriñ fallu jaay jël njëgg a jébbal sëñ tubaa daan ne man sëriñ fàllu ooma sëñ tubaa rek am kon kooku kuy jàngat taalibe danga nga delloo siwaat ji koy sëriñ fàllu waaye dañuy waxtaane tey jàmbaar ju mag di sëriñ saaliw yonent bi alayhi salaatu wasalaam la taxoon yàlla yónni ko ci jaam ñi mooy mu mottali jikko yu baax ci xolu nit ñi te jëmm jii di sëriñ saaliw ku waxtaan ci moom danga nga delloo siwaat jikko yooyee ndax waxtaane ko moom sëriñ saaliw day delloo siwaat pas-pasu murit moom Cheikh Saalihu Mbakke radiyallahu taala anhu di jëmm joo xam ne yàlla tànnaloon na ko askan ndax nit soo koy waxtaanee mënta ñàkk nga waxtaane ak askanam ndax askan dafa am solo ndax askan mooy tax ñu xam nit ki mooy kan Serigne Saliou yàlla da koo tànnaloon askan wu tedd ci wàllu kër bàyyi di maam xam nga ni Serigne Touba mii waajuram Maam Mor Anta Sali ko jur te mam Mor Anta Sali mam Balla Aysa man Balla Aysa mam Maaram Mbàkke te Serigne Touba daa waxoon ni képp kuy say maam bàgg ci maam Maaram Mbàkke doy naa tegtal ndax yàlla sun borom subhanahu wa taala daa barkeeloon dunduk maam Maaram nam barkeeloon dunduk sun maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam kon doy na sëkk ci Serigne Saliou Serigne Touba baayam mam Mor Anta Sali maamam mam Balla Aysa mooy maami waajuram loolu doonatul kumpa kenn ci réew mi waaye nag suñ borom da koo tànnaloon waajur wu tedd wu jigéen muy soxna Faati Jaxate radiyallahu taala anha kan mooy soxna Faati Jaxate soxna Faati Jaxate góor gu ñuy wax sëriñ moo ko meññi te sëriñ Moodu Assa Jaxate yàlla daa dogal ko amoon wàccuwaay wu rëy ci sëñ Tuubaa la maanaam wàccuwaay yu amoon ci sëñ Tuubaa ñëw na ku ko am ndax njëkk sëriñ Tuubaa di dem ci géej gi buñ doon wax ki Serigne Touba njëkk a xamal ab tukki ci wàllu saayir ci géej gi mooy Serigne Modou Asta Diakhaté ku amoon wàccuwaay la ndax bi Serigne Touba sancee Touba Serigne Bassirou Mbacké wax na ko ci menoonu baaxil xadim nee na ñeenti ati yi ki njëkk a bàyyi ma xambaakool seer si Serigne Touba mooy Serigne Modou Asta Diakhaté waaye bi muy ñëw dafa ànd ak ab taawam muy sa tu jaxate bi mu ñëwee yendoog sëriñ bi bay dem Serigne bi ne ko Modou Asta mu ne ko Mbacké maa ngi waajal tukki kon buñ dee wax tukki géej gi kii ko sëñ Tuubaa njëkk a wax mooy sëñ Modu Asta Jaxate di maami Sëriñ Saliou sëñ Tuubaa ne ko da ko ne damay waajalu tukki mu ne ko xanaa Mbàkke ji may dégg la mu ne ko déedéet tukki bu sori la waaye Modu Asta mu ne ko Mbàkke danaa dem danaa delsi loolu la ko wax danaa dem danaa delsi waaye yàlla dogalit keroog ba muy dem dafa jébbal sëñ Tuubaa sëriñam sa tu njébbalin goo xam ne ñëw na ku ne dégg maanaam gis naa jébbalin gu toll ni jébbal gi ko mu mu mu ko jébbal taam da ko ni am sata sama taaw la waaye maa la ko jébbal waaye gën njëbbalin njëbbalin goo xam ne su ma la ko joxee yow sëñ Tuubaa loolu ñuy wax diggante baay ak doom araam na ci sama diggante ak seen sutu kon cërub baay ak doom jébbal naa la ko jébbal goog loolu ñuy diggante baay doom doxatu sama diggante ak sëriñ am satu mbàkke naa la ko njëbbalin goo xam ne am satu maay taawam maanaam sama taaw la waaye su ma njëkkee faatu man mii di bàyyam am satu dootuma donn waaye moom mii di am satu sama taawit su ma njëkkee faatu man mii di baayam duma ko donn kon jébbal naa la ko njébbalin goo xam ne li ñuy wax diggante baay ak doom doxatu sama digganteeg moom daal di ko ni leen rek laa ci bëgg mooy ëllëg yomal xëyaam yow sëñ Tuubaa boo nee bërig jëm ca taxawaay ba lay sama cër ci yow mooy bu kenn dox sa digganteeg sëriñ am satu sëñ Tuubaa na ko nangu naa sëñ Modu Asta bi sëñ Tuubaa demee ci géej gi ba jógee ci gi ba ñëw wax nañ ne daan defar baraay weer ko ba mu wow baxal maanaam baxal sëpp boole koog baraay bi takku ko ci saako yit ko Serigne Touba gànnaar ummahaatu muridiina ya buñ ci daan jëfandiku buñ jëlee ndox mu tàng sotti ci xaw tu mu doon cere ñeex amoon na wàccuwaay wow ci sëñ Touba bi yàlla dogalee nag bi Serigne Touba jugee ci géej gi ba ñëw njaareem wax nañ ni daan na yónni addiyam te wax nañ ni li Serigne Touba masa tab ji tab ji saa bëgg masaana gis sëñ Moudou Asta Diakhaté sëñ Touba da daw maanaam baramtu koog sëriñ Moudou Asta Diakhaté ba wax nañ ne am na bés sëñ mu sëñ Moudou Asta yónnee addiya ca njaarim sëñ Touba mag ñi xamal ko sëñ bi ne ko moom day yónnee addiya lan la wax jëf la yónnee am wax ñu ne ko Mbàkke jëf la yónnee sëriñ bi jóg xool ko muy juróom-ñaari fasinaaru góor benn bu nekk ànd santam sëñ Touba daal ne waaw waaw Moudou day daa way daa di dama xam-xam ngeen way ak waye di mag ñi daaw ñu wax sëñ Tuubaa déet waaye dañ ko daan wax ni mbàkke lu dul loo ñu xamal xamuñu ko mu ne leen way mooy da sax ci lu baax ne ca ba dégg feneen lu baax am way jëli loolee dolli ci la loolu moo dig way xam ngeen waye di mag ñi ne teg mu ne waye di mooy sax ci lu baax nekk ca ba dégg feneen lu baax doo am way jëli lu baax la dégg dolli ko ci li nga yor loolu moo dig waye di waaye mu du as sa jaxata daa way kooku mooy maami Serigne saaliw di maami Cheikh Abdoul Ahad di maami Serigne Soyibu waaye di maami Serigne Abdoul Baaxi kooku nag dafa dëkkoon ak jigéen ju baax jigéen joo xam ne dañ koo war a jël teg ko mu doon ab modèle mooy soxna Dieng Sylla Libaas ndax góor gu baax goo ma sa dégg mais jigéen ju baax ma nga ca wetam am déet mais jigéen la njëkk a dee ci lislaam jigéen la njëkk a yëkkati alalam def ko ci yoonu ci ci ci lislaam kon jigéen yàgg naa sonn ci lislaam kon góor gu baax goo dégg ci àddina ba di ko yéem jigéen ji baax ma nga ca wetam kon nag daa dëkkoon ak jigéen ju ñu mën a roy ju ñu mën a teg jàng ci moom jikko muy soxna jeng sile libaas kan mooy soxna jeng soxna jeng sëriñ ma paate sila ko jur sëriñ ma paate sila naari gànnaari ñoo ko doon wax libaas ngir xam-xamam bu bari akuk sàmmam akuk maanoom ak ragal yàllaam mooy waajuram waaye mu bokk ak sëriñ ma ñaaw si li mu siiw mu kàng ma te kenn ku nekk histoire murit lu waay gàtt gàtt xam-xam dégg nga sëriñ ma ñaaw si la mu siiw mu kàng ma mooy càmmeñu soxna jëng si la libaas ngir résumé waxtaan wi jamonoy cooroor cooroor mooy buñ demee ba sàq yi tàmbali rët xam nga dañuy maanaam nawet day wàcc ñu jël dugub ji def ci sàq yi bu demee ba ba maanaam maanaam ba nawet jege si dañuy tàmbalee rocc li nekk ci sàq yi di dinde waaye biñ demee ba jamonoy cooroor ñuy séentu taw cooroor gi dem ba gambu maanaam taw soriitul dafa diisoog borom këram foofu jigéen ñëpp dañ ko war a jël modèle bàyyi ko maanaam bàyyi ko xel dafa diisoog borom këram ne ko may ma ndigal ma dem kër libaas mel ni soxna su lay tàggu ngir dem kër nga ne ko mën ngaa dem waaye na ñu waxtu sàngam waaye mag ñu njëkk ñëpp bu ñu daan waajal seenu njaboot keccax yeeg baraay yeeg suusal yeeg noonee lañ daan waajale seenu njaboot waaye bi mu ñëwee ngir bëgg dem altine man manee naa ki mbokkam ngir bëgg dem waaye dañ ko ne da ngay bàyyi ba talaata talaata jot ñu sëf-sëf yi boole kook jaami kër ndeyam mu uti mbaakool waaye bi muy jub mbaakool dafa fekk ñuy noddu gee bi sëriñ moo daal sa ci jàkka ji yem ci moom génnee ci kër gi yam ci moom da ko daandi koo kii mun a ko mën a faat jeng ban bés la jàppaloon mun a ko altine lan moo sabab nga ñëw talaata mu ne ko man manee naa ki samay mbokk ngir bëgg ñëw waaye yóbbal yi daa xajul ci altine moo tax ma bàyyi ba talaata tàngoor ak njaxate du ko dugg ne ko sa tànkum ndejoor boo fekk bopp càmmuñ fekk ma ci biir mu ne gees jaami kër ndeyam na sippi leen sëf te dellu nax fii la saa ndigal ne ñoom it bañ àggee waxuñu dara de mu sippi sëfi yi sëñ ma du génnee ci jàkka ji dugg ci kees gi fàtte ko bët fi bi ci kawam taw bi bari lool dënnu yeeg ngelaw li booba moo ngi nampal sëriñam satu jaxate mi ma la wax waaye bi ndox mi demee ba bari mu bañ mu wàññi siñam satu mi mu boot da koo wàcce jël suuf si bam torni settar ne teg ko ci sëpp ko mbaaral ko ngir bañ dox mi wàññi ko dara noonee la tayee ci ko am bañ ne salaatu xëyri mi ne naw mi bi mu génnee ci kees gi waxtu fajar yem ci soxna si daa mel ni ku tiit ne ko ane koo kii mu ne ko man a faat jëng looy def fii mu ne ko biig damaa jub kër nga ne ma bul dugg texoogo mën a may def mu ne ko am naa kersa de jàll ci biir keroog bi mu génnee ci jàkka ji jëm ci kees gi la mag ña am naa kersa waaye Faty Dieng si li tey ma xam ne yàllaa mën a fay yonent bee mën a fay dootul am benn goro bu dul Seexul Xadiim lan la ko yàlla fayee ku pattut la giwul ami barke ami jaam attana dundu coono gi te xamoo ba ko yàlla di teggi amaana da nga ko fekkee mbir bu ñuy wax dëgg-dëgg sirkul irada mooy soxna Dieng si leen libaas kii mooy maami Serigne Saliou ki mooy maami Cheikh Abdoulaat ki mooy maami Serigne Soyibu radiyallahu taala anha kon mën nañoo yem foofu ci askanam moom Serigne Saliou kon nag gis ngeen ko mi ngi noonu euh, sëriñ bi euh, maanaam defal nañu euh, sëriñ Saliou Mbacké maanaam ñi nga xam ne ñoo ko meññ ci côté waajuram bu jigéen laata cheikhul xadim nag di ñëw moom ci wàllam alors cheikh Saliou Mbacké sëñ Assane mi nga xam ni foofa la soqeekoo te muy fu riche foo xam ni mu mel ni suñu borom bu namee dara da koy waajal ca njëlbeen. alors bu ñuy ñëw nag di wàcc si ba ci ki nga xam ni euh, maanaam ak ganem àddina moom Serigne Saliou mbake événement bu rëy la woon de xanaa loolu. loolu moom wax nga wax loolu événement bu rëy la. ganek jamono Serigne Saliou ci njaarim am na ci loo xam ne sax kenn du ko wax waaye xawaarix yoo mën a dégg ba di ko yéem ci àddina ba Serigne Saliou gane njaar ganee àddina ca njaarim loolu loolu loolu xew na fa wax nga léegi wax ju am solo. danga nga ne bi mu ganee jamono xew-xew bu rëy am na ca njaarim wér na ndax Serigne Saliou Serigne Touba ko waajal waajal mooy wax nga léegi wa isa arada allahu amran an yaxallaahu asbaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane kullu muyassarun lima xuliqa lahu maanaam nit bu sun borom nammee ci moom dara da koy utal wàccuwaay wu rëy kon bi yàlla nammee ci Serigne Saliou mu doon ku jub te jubal waaye namm ci Serigne Saliou mu doon ku ñuy roy mu doon roy waay wu ñuy roy ba faw la ko waajal li koy sabab tànnal ko waajur yu tedd tànnal la ko waajur mu góor ci askanu Mbàkke wax naa ko léegi tànnal la ko waajur wu jigéen Serigne Saliou Serigne Touba ma ngi ko ñaanee ci yéen jolof waaw ci yéen jolof fale Serigne Touba ñaanee yàlla ku mel ni Serigne Saliou bi mu nekkee ci yéen jolof yàlla dogal na bi mu jugee gànnaar moom cheikhul xadim ñu jëm ak moom ceen jolof lan lañ ko doon defi ceen jolof mooy yàq ab ndax booba indi nañ ko njaarim indi nañ ko gànnaar booba biñ ko fa indee mooy xeet der bu weex xeet maanaam maanaam der bu ñuul dana war a complexe der bu weex ba bu ba bu fa àggee du am dara kon bi ñu yóbbu sëñ tubaa gànnaar xeet der bu ñuul moo tax waaye bañ demee gànnaar mbooleem kàngami naar yi mujj nañ jox seen boppu sëñ Tuubaa gànnaar échec tubaab bi échec ci loolu ñu ne nag nañ ko yóbbu kon euh, maanaam ceen jolof booba jolof ceen ceen sori na doxub ceen ba metti na booba dang ci gis mag mu waaj senegal jëm ceen waaj addiyaam mu dem ba mu dem ba sori ñu dogandu ko nangu addiyaam fitnaal ko mu dellu siwaat ci réewam waajaat waaj gu gën a fawxa nam waajee woon ngir fekki Serigne Touba ci yéen Jolof kon mag ña dañoo amoon pas-pas am na ci mel mag moo xam ne bi mu bayee ba mbay ma jeex amu cu lu dul ñetti dërëmu ngurdu roof ko ci ñeeru caayaam maanaam uti ci waaye bi bi muy demee ba sori dañ ko addu dañ ko dogale laaj ko loo yor mu ne ma dara ñu ne ko waxal li nga yor mu ne dara ñu ne ko dañ lay rey de mu ne ma dara ñu ne tippit benn baaraamam dog ko bi ñu daggee benn baaraam bi mu for baaraam bi ñu naa ah, bàyyi leen ko ku ngeen laaj ne ko loo yor mu ne ma dara ngeen dagg benn baaraamam mu yorul dara bàyyi leen ko mu for baaraam bi bi ñuy ci yéen jolof ba génne addiyam da koo booleeg ñetti dërëmu ngur diya da koo booleeg baaraam ba jibbal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa da ko am lu waral lii mu ne ko mbàkke dajeeg ñiy addu ñu laaj ma loo yor mu ne ma dara ñu dog sama baaraam sëñ bi ne ko lotee li nga ma doon jox nga jox nga jox leen ko mu ne ko dog samay cër ba mu jeex mbakki moom a gëneen ma yëkkati addiya ji ma leen di jox di kon mag ña seen dimension dafa kawe ñu andi ko ciin ngir lan ndox bu sori murid yi daan fekk Serigne Touba ciin nu raw loolu barab boobee nag la Serigne Touba ñaanee yàlla ku mel ni Serigne Saliou Serigne Touba bi mu nekkee ciin daa ñaan yàlla ñaan gu rëy yàlla ayu Serigne Touba ne ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko loo ma ñaan may naa ko waaye ñaan nga ma ñaan gu rëy waaye may naa la ko waaye maa ayu na nga ut soxla soo xam ne juróom-ñaari maamam duñ lekk mooyal ak a jafe ci joojee jamono ñoo xam ne duñ lekk mooyal ay jaamukatu yàlla la ñuy doon ay alim lañuy doon ay abid lañuy ñuy doon ñuy dundee seenu ñaq la doon mu yëkkati ñetti téeméeri dërëmu ngurdu jox ko maam Cerno keroog borom daaru ca ca bëgg sëriñ Touba ga moom borom daaru keroog la rëppatal fasam uti Mbakol Mbakol tey boo fa demee am na Dakar gu ñuy wax Dakar no Mbakol am na Dakar gu ñuy wax Dakar Thierno waxtu marax gi borom daaru moo si Mbakol daa fekk soxna Faati Jaxate waajuru sëñ Saaliwu Mbàkke di di di bàgg di tari alxuraan borom daaru bi mu ko xoolee ba xam ne mboolem critères yi sëñ Touba wax dajale ci soxna si mu ne ko kii li ma sëñ Touba doon wër la mun ne ko ndokk ndax kii dafa dund ba mate dem kër lu lew lay dundee keroog lañ waajal soxna si yéti ko sëñ tubaa ci jolof kon soxna faati jaxate ñoo ngi ko joxe sëriñ tubaa ci yéen jolof ba mu ñëwee jolof am na fa abdul xuddus am na fa abdul baaxi yi waaye am na fa soxna taahiratu mbakke kon sëriñ saaliw bokk naag ñett ñaar ñu góor ak kenn ku jigéen laata muy ñëw soxna Tahiratu Mbakke yàlla dogal na mel mennum doom ju jigéen joojee la soxna Fat Jaxate amoon ña ca des ay góor lañ muy Serigne Abdul Baaxi yi Serigne Abdul Xudduus ak soxna Tahiratu Mbakke Serigne Abdul Xudduus Cheikh Abdul Ahad Mbakke tuddee na ko doom waaye soxna si nag ndegam li mu am mu dem bi yàlla dogalee sëñ Tuubaa jógee Ceen Jolof jëm si njariñ bi mu ñëwee mennum soxna Fati Jaxate waajuru Serigne Saliou la sëñ Tuubaa bere lu kër. mboolem waa barsàq yi sëñ Tuubaa dëkk woon men moom soxla Faati Jaxate moom la ci sëriñ Tuubaa beral ak kër boppam moom la ko ni soxla Faati Jaxate mu ne ko Mbakke mu ne ko saa borom nee na naa la beral sa kërug bopp ndax sa cër daara yi men moom ca njaarim moom la ci sëriñ Tuubaa beraloon kërug boppam moom soxla Faati Jaxate bi yàlla dogalee ñu ñëw njaarim ñu nekk fa nekk fa ba sëñ Tuubaa sañ ci kër gi digal ko it mu sañ ci këram mooy kër gi jàkkarloog kër sëriñ kër gu mag gi kër googee la sëriñ Mouhamadou Aminata yee salaat ci ndigalu sëriñ Saliou bi yàlla dogalee mu sanc barab bi ñu nekk fa nekk fa ba sëriñ Saliou waree ñëw jamono maanaam bi sëñ Saliou waree ñëw sëriñ Tuubaa da koo teeru teeru mooy ku war a am gan gan gu war a ñëw goo war a fonk dafal koy bernde noonee la sëriñ sa sëriñ Tuubaa teeroo sëriñ Saliou kon sëriñ Tuubaa moo njëkk a teeru sëriñ Saliou njëkk maanaam murit yi am cofel ci sëñ ci sëñ Saliou sëñ Touba ci njëkk am cofel cofel weesuwul gan gi nga ñaanoon sun borom ngir mu yeggale la sa mission ci ndaw ñi gan googee boo demee ba ba sun borom jox la ko ba mu war a ko teeru moo tax Serigne Touba teeru sëñ Saliou ci gan anam bés boobee ci njaareem bésub alxames ndax guddi gàjjuma ci la Serigne Saliou ñëw jamono kon bëccëgu alxames googee mbégteem sëñ Tuubaa yokku na ci njariñ maanaam booba booba maanaam bëccëgug alxames booba ex booba ñëwagul bëccëg googee mbégteeg sëriñ Tuubaa yokku na ci murid yi ndax sëñ bi ko naqaree gis la waaye bëccëgug alxames googee lu dul ak julli sëñ Tuubaa ngi bégal mag ñi ci jëmam ju sell ja ngir séenu ak mbégteeg gan gi ko sun borom jox bi yàlla dogalee mu war a bëccëg googu bëccëg googee sëñ Tuubaa tàngal na kafe ci loxo boppam tàngal la warga ci loxo boppam yónnee lu ko daaray kamil ndax bëccëg googee jàngalu na alxuraan jàngalu na xasida defar na kafe warga ci loxoom yu sell ya yónnee lu ko daaray kamil daan na mag ña nañu jàngal alxuraan jàng xasida ñaanal gan gi may séenu gan la gog saa borom moo ne ma ahmadou ma ne ko mbakke mu ne ma bu ngeen ñaanee ba jot ci ku jamonoon teeg moom mucc sa kon kon sëñ Tuubaa moo ne Sëriñ Saaliw bu ñëwee jamono képp ku jamonoon keeg moom sa yaram araamal na sawara ñu nekk ci loolu nekk ci loolu ba guddi gàjjuma gi feeñ ci la Sëriñ Saaliw Mbàkke ñëw jamono kon ci guddi gàjjuma ci la feeñ alxames ci guddi ci guddi gàjjuma gi ci la ñëw jamono te guddi gàjjuma kenn ku nekk xam ne ne mooy sangu ba sëpp sëñ Tuubaa dafa wax ci sulkul jawaayir yi nit su faatoo bëccëgu àjjuma wala guddi àjjuma sun boroom du ko fitnaal te buy dekkay ngërëm lay dekk wale loolee da ciy wax ne dara ji guddi àjjuma ca guddi googee ci la Serigne Saliou Mbacké ñëw jamono waaye ci ban weer weeru diggu tabaski ci fukki fan yi ak ñeent su weeree demee ba leer nañ ñi ba rafet lool ba boo koy xool doo am genn nattable ci la Serigne Saliou ñëw jamono waaye ci ban pàkk pàkk boobee nga xam ne Serigne Touba daa waxoon ne ormal leen barab bi moom njaarim ndax benn pépp suuf bu nekk taxawaayu kaamil lay taxaw ca ñetti martaba yooyee ca la Serigne Saliou Mbacké ñëwee jamono keroog ba mu feeñee Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na maa ko yëgal sëñ Touba waaye bi ma ko ko yëgalee sëñ Touba daa bég ba bind baat ba baato asaliha baat boobee bi ko sëñ Touba di bindee àggul suuf dafa capp bi mu ko bindee da koo jox ko ñu wax sëñ Mat Laam ne ko Mat Laam mu ne ko Mbacké yëkkal tur yi sëñam sëtu nee ko tuddee naa ko Saalih mu ne ko Mbàkke foo ko nasab mu ne ko bés bii mu ñëwee jamono moom sëñ Saliou bés bii la doonee xut bu samaanu jamono moo tax bés moom feeñee ca njaarim wax nañ ni teelu badar dafa am teel boo xam ne ci njaarim sëñ Tuubaa daan la wax ni buñ ko laal ndax waa badar yi ñoo ci wëggu sëñ Tuubaa nee na guddi gi sëriñ Saliou Mbàkke ñëwee jamono keroog la teelu badar bu bënni ci njaarim xawaarix i ci xew bari na sëñ Moussa wax na ko mbooleem li dooni saalixiin ci sawu jant mbaa yàlla sëriñ saalihu doon seen jant bu tiim waa na fi sëriñ Moussa Ka it wax na ko Cheikh Saliou doonay xalifay Bamba ma nga mu yor ci mbuur attan yan ba waaye li tex ba mbuur jiitu ci mbooleem réew mi doonay xalifa baa fa xel li meew sëñ Tuubaa wax na ko asaaliha allazi yukammilul amal sëñ la Lamin gaaral ko ab qaahu mukmilan lahu adyahu kon daal gane ne addina ci njariñ la ci xew bari na te gaaw gu jot sëñ Tuubaa daan na yónneelu sëñ Saliou ci kees gi ñaanal ko gaaw gu jot waaw ñu ñu maanaam soxna Faati Jaxate daana ko leewu dugg ci kees gi jox ko baay mu ñaanal ko gaaw gu jot ci njariñ sëñ Tuubaa da ko ñeewantu woon ndax lu ñëw dem moo tax mu daan ko ñaanal ba am na bés soxna Faat Jaxate jox ko soxna su baax sol la lu jot daraaju jot bay buubu koloo na jot waaye dara jim sol eesuwul ci ay tikki jaraam waaye weesu naay concam keroog bi mu leewoo sëñ Saliou dugg sëñ Tuubaa da koo xool ba soxna si rëpp sëñ Tuubaa ko ani lii nga sol lu ci jublu mu ne ko mbàkki lii la am ba manto bi ni ko lëmas ko say tikki jara leewu sëñ Saliou di ñaan di tefli di ñaan di tefli ba ñàqu sëñ Tuubaa ma ngay seeb ci kaw sëñ Saliou mu ne delloo ko sëriñ Saliou dani bi ma mbéylalee sama bopp may daw ci kees yi kon ku meenoon la jaxasoo noonu bàyyam radiyallahu taala anha jërëjëf Mbacke sant nañ bu baax a baax ci ñëwal nañu ci euh, fa sëriñ saaliwu cosaanoo cosaanam ci côté way juróom wu jigéen ñëwal ñu nag ni mu ganee jamono ak ni ko Cheikhul Khadim teeroo mu di guddik ajuma googu nga wax nga xam ne alxames ci guddi bët set di ajuma nga xam ne sëriñ bi moo ko teerul boppam euh, ndax euh, màggaay gi nga xam ne Cheikh Salihu mbake sëriñ bi waajal na ko màggoog sëriñ Salihu mbake léegi nag Mbacke dama bëgg ñu ñëw ci sëriñ Salihu mbake dalum njàngam waaw foofu la bëgg nga ñëw euh, fan la dalay jàng ak ku dalal jàng. jëf ci laaj bi nga laaj jërëjëf ci laaj bi nga laaj ci am nda am njàngam sëriñ Saliou juróom-ñaari at la def njaarim juróom at la def njaarim mii noonu sëriñ Touba lool wax na ni su ma masaane gis saa baay ci kees gi dama daan daw riir wuti ko waaye Serigne Touba daan na waaxu dajeeg Serigne Saliou ca njaarim cofeel gim làqoon ci moom jéggi na dayoo dama ne sëriñ Saliou bëgg sëñ Touba da koo ñëwaale àddina ñun bi ñuy sopp sëriñ Touba dañoo dem ba xam ne sëñ Touba mooy za naf in bila dërëri maanaam njariñ lu ànd ak lor mooy Serigne Touba tax ñu bëgg sëñ Touba Serigne Saliou cofeel gi mu am ci Cheikhul Khadim da koo ñëwaale àddina daa bëgg sëñ Touba lool ba mu masaane riir seen baayam da daan daw ba wax nañ ni ba ci njariñ sëriñ Mbàkke jaxate mi bokk ak soxna faati jaxate lépp wax na ni ba ci njaarim sëñ Tuubaa da ko ni wool ma njaboot gi foofu booba ña fa nekkoon lenn ci ci ci doomi sëñ Tuubaa yi mu xellil leen ñu jug mu duggaat ci kees daa ko ni wool ma saaleex bi sëriñ Saaliw ñëwee sëriñ Mbàkke jaxate nee na benn kaas ak benn baraade la sëñ Tuubaa teg jox sëñ Saaliw mu naan mu xelliwaat joxaat ko mu naan mu xelliwaat joxaat ko mu naan sëñ Saliou ne ko man di naa sëñ Tuubaa ne ko naanal benn kaasa ci des bi ko sëñ Saliou naanee daa daanu mu ne ko mbàkki loo ci jublu mu ne ko damay def ci moom ëllëg képp ko dajeeg moom jamono saf sama jëmm ji man Cheikhul Khadim kon loole amoon na ko ci baayam juróom-ñaari at yi mu def njaarim sëriñ Tuubaa ko dalal ci loxo boppam maanaam bu ñuy wax dalal nit ki sëriñ Tuubaa moo dalal sëriñ Saalix ci loxo boppam waaye bi mu ko dalalee ci loxo boppam moom la dalal ak Serigne bu ak Cheikh Abdou Samad Cheikh Abdou Lahad jiitoo na Serigne Saliou ci daara ji at ak ñetti weer muy 15 mois at ak ñetti weer la jiitoo Serigne Saliou ci daara ji waaye yoon wu njëkk wi Cheikh Abdou Lahad Mbacke du jóge Touba ngir ñëw njaareem ci ndigalu Cheikhul Khadim ca la sëñ Touba dalalee nag Serigne Saliou ak Cheikh Soyibu ak Cheikh Abdou Samad. daal ne andi leen dem Touba kon dañoo jàpp ne ñoom la dalalanoo déedéet waaye Cheikh Abdoulaye jiitoo na ko at ak ñetti weer muy 15 mois ca Touba waaye bi mu koy dalal nijaayam la ko jox muy sëriñ am satu jaxate lan la ko wax am satu mu a ko mbàkke damaa bëggoon nga jël son yi bu ak Saliou ak Abdou Samad ñu ànd dem Touba jàngi waaye am satu mu a ko mbàkke joxuma la ko ngir nijaay joo doon ci ñoom baat boobu la ko sëriñ Touba njëkk a wax joxuma ko joxuma la ko ngir nijaay joo doon ci ñoom déedéet waaye dama laa yar ba bëgg li def ci yow nga defal ma ko ci ñoom am sëtu mu ne ko mbakke maanaam la doon maye ngir li def ci yéen def ko ci ñoom maanaam takkoo moo ko doon maye te jamono jii mënatuma takkoo waaye jël leen nga yóbbu leen ca daara ja waaye joxuma la ko it ngir nijaay aada ji xew damay jël diw sabab jarbaat la maanaam jox ko nijaayam déedéet sëñ Tuubaa moom loolu la ñëkk a dàq da ko ne joxuma la ko ngir ni jaay joo doon ci ñoom déedéet waaye dama laa yar ba bëgg li ma def ci yow nga defal ma ko ci ñoom daal di ko ne am sëtu mu a ko mbàkke boo demee bu leen ber daara ja boo demee bu leen ber boole leen ak ñëpp daal di ko ne am sëtu mu ne ko mbàkke lu war a regg ñett ne ko juróom bokk ak ñoom Serigne Saliou daa wax ni bañ egsee Touba ca lañ boole jàng xëy tool kon kon ñoo ngi leen di tàmbalee tarbiya maanaam nañuy boole jàng ak xëy tool Serigne Saliou dañu kadda boole ji lañ daan bayee di suufu Serigne am satu ak jannatul maxwaa fii tolloo kër Serigne Béthio Thioune sëriñ Saliou daa wax ne daan nañ bay ba xiif Serigne sooy bu dagg bi saab tëcc ko ba mokk def ci xorom den leen ko toqale ñoom doomi Serigne Touba ñuy mar Serigne Saliou nee na daan nañ woor ba ngoon jot ñu dogee cere ju amul ñeex wala lekk laax buñ dul rek lan la ci Serigne Saliou teg kon bi ñuy dogee cere ju amul ñeex di lekk laax buñ dul regg xam nañ ne sunu kër baay ca njaarim ndaw la wata bor jeexu fa daa dina mennum at la leen Serigne Touba ma sa jox bitéelub diw ñor Serigne Saliou nee na booba neex na ci ñoom ba gëmewuñ ko mennum at la leen Serigne Touba ma sa yónnee bitéelub diw ñor buñ daan lekk cere ji ci ko daan sotti daa dina neexoon na ci ñun ba gëmewuñ ko dellu wax ni moom Serigne saaliw ne maanaam bi ñuy dogee cere ju amul ñeex di lekk laaf ba dul regg xam nañ ne suñu kër bàyyi ci njarim ndawala wata boor jeexu fa ndawala wata boor yàpp wu bees daan na bàyyi Cheikh Ibra bàyyi Cheikh Anta bàyyi seexi saa jenn àggoon nañ ci barke kenn ku nekk daan nga xëy rayub gàtt toog bañ rayub gàtt toggub reer ñoom lañ yoroon sun barke bàyyi la te buñ ko weddi woon ñàkkut saasi lan la ci sëñ Saliou teg lu gën loolu lañu lañu sëriñ Tuubaa doon fàggul mooy lii daan nit ku nekk daa war a nangoor tumuraanke ji ngir sàkku xam-xam ak topp maanaam sàkku ngërëmal kilifaam waaye kenn warta sukkandiku sa barke bàyyi bam la di tee sàkku ji xam-xam wala wute ngërëmal yàlla bi leen sëñ am satu indee Tuubaa tab ji tab ji boo ko déggee mooy itte itte ju bari ju sëñ tubaa ji soxla sëñam satu diggante tubaa njariñ loole tax na sëñam satu bi mu leen indee da leen a boole ku ñuy wax sëriñ alsaan jaxate doomi sëriñ jàmbaar jaxate moo leen jàngal moo leen jàngal bañ wattu alxuraan léeg-léeg sëriñ tubaa daal di yónnee sëñam satu andil ma ñenn ci gone yi li ëpp sëriñ saaliw ak cheikh soyibu ñoo daan ànd cheikh abdoulahat ak sëñ Abdoulahi Jaxate ñoo daan ànd sëriñ Saliou daa wax ni am na yoon woo xam ne dañoo jëm si njaarim yendu xuru Mbàkke xuru Mbàkke kër sëriñ Mbay Jaxate keroog ba yëg seen ngoon jot ñu laxas jawali njaarim sëriñ Saliou dañuy ba ñuy egg si njaarim booba kër yaa ngi ràbbaloo maanaam takkusaani suuf nee na gannaaw timis leneen sëriñ Tuubaa woolu gannaaw timis leneen sëriñ tubaa wolu te sëriñ Saliou nee na bañ duggee ci biir ña nga fekk sëriñ tubaa ñu taalal ko lampe fatafoor bu leer waaye ma nga capp moom Serigne Touba basangu romb jaan mi ngi ci wet gi waaye fel yaa ngi sam yaramu Serigne tubaa ba doo gis dërëb yaramu Cheikhul Khadim waaye baaram bu nekk ma nga di bind moom sëriñ Touba sëriñ Saliou nee na biñ dugg see Serigne Touba ne leen ani fu ngeen yendu ñu ne ko kër Mbay Jaxate Serigne Touba ne ko mooy sa nijaay keroog fel yi sam yaramu sëñ tubaa ñeewantu gi ko sëriñ Saliou ñeewantu keroog ba mu ko yàkkati ngir ñeewantu sëñ tubaa sëñ tubaa da ko ayu ne ko bàyyi sëñ Saliou jooy ko jooy métti métti keroog sëriñ tubaa laaj ni leen fu ngeen toll ñu wax ko fu kaw njort sëñ tubaa ne ko Saliou mu ne ko Mbàkke bu ngeen jàngee bu ngeen mokkalee alxuraan ba bind kaamil yit ma damay ànd ak yéen tubaa dëkk fa dëkkoo leen fa lu ngeen bëgg ma defal leen ko waaye bañ tolloo ci mokkal bay beqi bay waaj bind ci la sëriñ tubaa wu ji kon sëñ Saliou sëriñ Alsaan Jaxate doomi sëriñ jàmbaar Jaxate moo ko jàngal ba mu wattu alxuraan sëñ Saliou 1915 ndax le 22 septembre 1915 ci la gane jamono ci njaarim tolloog fukki fan ak ñeenti ci weeru diggu Tabaski atum 1333 muy atum junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñett ci gàddaay gi ci la Serigne Saliou Mbacké ñëw jamono waaye nag sëriñ Alsaan Jaxate moo ko jàngal ba mu wattu kon jaaru fenn kon kenn ko jàngal alxuraan ba mokkal waaye bañ tolloo ci mokkal bay beq bay bind ci la sëriñ Tuubaa ci liggéey comme lam la waxoon njaarim ne leen su ngeen mokkalee ba bind kaamil it ma damay ànd ak yéen dëkk fa dëkkoo leen fa lu ngeen bëgg danaa leen ko defal kon bañ jàngee ba mokkal ba bay bay beqi bay waaj a bind nag ci la sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul euh, ñibbi àjjana radiyallahu taala anhu kon foofu day naa yem. ok euh, ko. Euh, sëñ Touba moom xam nga ni euh, li mu wax ci am na lu wax ci konkaati ma ne li fal ilmu laa yoxtaali man yaxsha tawa bal rabbuna abdan saburan yulhimu kon loola rek firnde la li nga wax sànq ci ci ci ci ci ñoom ca waaw njàng mu metti maag xiif baak yooyu jërëjëf sëñ Assane Mbacke maa koy fàttali ni moom mi sëriñ Saalihu Mbacke moo ko yaral boppam euh, ba pare defar ko ku ko dégg mu wax di nga xam ni defaru Serigne Saalihu Mbacke mi ngi ci moom yàlla na nga fi yàgg Mbacke te wér alors Ndindy Actu euh, moo la seet si tey ma koy fàttali ñi nga xam ne ñoo ñuy xool ci waxtaan wu réew yi nga xam ne ñi ngi fàttaliku euh, demuk Serigne Saalihu ñi ngi toll fi nga xam ni euh, fala la dalay jàng léegi nag jàng na macha allah ba mm, peeg nañu waaw. jàng moomu moom Serigne barab yi fasanti jàng na fa ndax wax naa la léegi ne leen seen kaamil joxuñu ko sëñ Tuubaa ndax biñ tolloo ci mokkal bay beqe bay waaj a bind ci la sëñ tubaa wuy ju boromam sëriñam satu mi leen sëñ tubaa tegoon ci loxoom moo jël seeni kaamil cheikh abdoulat sëriñ saaliw sëriñ sooyibu cheikh abdou samad jébbali cheikh moustapha al karim muy seen mag daa di ko ni ndigal li ma sëñ tubaa joxoon ci ñoom mooy jàng leen alxuraan njàng mi yegg na yaa fii sëñ tubaa jël kaamil yi jébbal leen cheikh moustapha mbàkke taxawu leen taxawin mu jéggi dayo taxaw nu yéeme la leen Cheikh Moustapha Mbacké taxaw ci ñeewantu ak bëgg ak yërmande ga sëñ Tuubaa amoon ci ñoom taxawaay wu toll noonu Cheikh Moustapha al taxaw na ko ci ñoom tax na da leen a jël yóbbu leen tindoo di ci penk Touba jébbal leen ku ñuy wax Serigne Makhtar Dieng Goyaar loolu 1927 la at mi sëñ Touba làqoo ay weer lañ ca teg Serigne Mouhamadul Moustapha Mbacké jël leen yóbbu tindoo di ca këram gu mag ga ca tindo di ci penku Touba jébbal leen ku ñuy wax Serigne Makhtar Dieng Guyaar loolu 1927 la 1928 1929 Cheikh Moustapha dellu leen jëlee tindo di indi leen Touba sëñ Saliou daan na wax ni sax keroog bañ egsee tindo di fa lañ fekk sunu mbokk ya Serigne Cheikh Gaynde Fatma Serigne Aliou mu Serigne Mouhamadul Moustapha ak Serigne Mbacke Madina tindo di la leen fekk gannaaw boobee. tolloog 1929 la leen Cheikh Moustapha Mbacke jëlee nag tindo di indi leen Touba këram gi ci Daaru Xuddoos jébbal leen Serigne Abibou mbakke moom Serigne mbakke Kajoor ñu jàng fa at at moomee nag moo tollook tolloog 1929 1930 1930 nag la Cheikh Salihu Mbacke radiyallahu taala anhu diisoog Serigne am sëtu jaxate ne ko tee nga maa tàggul Cheikh Moustapha sama mag su ko juboo ma dem Mbakol dama fa dégg boroomi xam-xam yu yu yu yu bari xam-xam te seene xam-xam it doy ma waaye tàggul ma Cheikh Moustapha bu ko juboo moom Cheikh Moustapha naa dem tindóot di doolee ko xam-xam waaye bu ko jubawul mën naa toog kon sëñ Saliou am kilifa da koo dàqal doon kilifa dégg nga li ko wax su ko juboo ma dem waaye bu ko juboo li ma toog Cheikh Moustapha it nemmee ko kan la fay fekki ñoo ko ma nga fay fekki sëriñ Abdourahmane Jaxate sëñ Abdourahmane sëñ Tubaa ko yar mooy maami soxna waalo Mbàkke mii taw sëñ Saliou ju jigéen ak Cheikh Moustapha mu sëriñ Saaleex ak soxna moom yi ndax moo meññi moo meññi soxna Mati Jaxate mi meññi soxna waalo taw sëriñ Saliou ak soxna moom yi ak Cheikh Moustapha mu sëriñ Saliou mu ne ko moom lay fekki mu ne ko dem leen ne ko na ko taxawu bu ñëwee taxawin woo xam ne bu suñ Tuubaa ñëwoon taxawaay moom ca yam na ko taxawee sëriñ Saaleex kon nijaayam la fekki keroog ba mu demee Mbakol ba muy dem mi nga ànd ak ñaari donga Serigne moor Ndiaye moom Serigne Makhtar ma Banji Khoudia Fall ak Serigne Makhtar Diaw Serigne Makhtar Diaw mooy Baye Baye Diaw Baye Diaw baayam mooy taalibeeb Serigne Saliou bi njëkk a ak moom ci kaw suuf ñaari donga yooyu la Serigne Saliou ànd bii mu ñëwee Mbakol mi ngi dal ak nijaayam Serigne Abdourahmane daan jóge ay numaan di dem dëkk bu ñax ci dara daramaan te diggante ay numaan ak ci la dara maan juróomi dëkk dox nañu fa te bés bu set Serigne Saliou dana ko bàggante ñaari yoon pour wax la xam-xam li mu jaraloon Serigne Saliou diggante ay nu maan ak ci la dara maan juróomi dëkk la te bés bu set Serigne Saliou dana ko bàggante juróomi yoon te àllarba ju jot dana yëkkati juróomi dërëmu ngurdu jox ko Serigne Saer Sylla Serigne Saer Sylla it daan nattu sëñ Saliou daan ko tegi coono waaye coono gu mu ko mas a teg ca xam-xam sëñ Saliou tegoo ko ba ma jum wax si Serigne Saliou wax ju rëy dañuy jëmu jiire su guddee dana am lu baax lan nga see déggee kon nit ku nekk war naa sàkku xam-xam waaye war naa nungoo tegoo coono ci sàkku xam-xam ndax loolu mooy barkeel xam-xam gi ngay sàkku loolu 1930 la tunduk ay numaan googu sëriñ Saliou dani dégg naa fa borom xam-xam boo xam ne taxul sax mu doon jullit waaye xam-xamam moo a doy mooy Hamid Saw Hamid Saw wax na ni njaarim la dëkkoon waaye bés ba Serigne Saliou ñëwee ci moom ngir mu jàngal ko téere bu ñax xilmul falak xam-xamu ak géographia ah. maanaam maanam waaw géographie xam-xamu addina bi ni mu tëddee suuf seeg asamaan seeg jaww ji waaw lépp maanaam moo ko jàngal Serigne Saliou waaye mbir njàng moomu da koo sartal bi Serigne Saliou ñëwee ci moom bëgga a jàng ci moom da ne damay natt sam xel ba xam attan nga ko Serigne Saliou na ko nangu naa waaye bi mu nattee xelum sëñ Saliou ba xam ne attan na ko. da ko ne dama lay sartal sëñ Saliou ne ko loo may sartal mu ne ko dëgg may utal nag mu bari meew su ma xëyee damay naan taxub soow bu ngoon jotee ma naan taxub meew sëñ Saliou ne ko nangu naa sëriñ Abdourahmane Jaxate mii ma wax di nijaayam mu yëkkati nag wa jébbal ko sëriñ Saliou mu yëkkati nag wa jox ko mu ne ko jàng mi ñetti at la sëñ Saliou ne ko nangu naa mu ne ko ndem sartal nga ma danaa la sartal mu ne ko lan la loo may sartal mu ne ko fekk ak ngi may jàngal may sañ a xam doo sañ a bàyyi xamit sax ko nangu naa njàngum ñetti at at la Serigne Saliou jàng téere ba loolu 1930 la kon 30 waaw kon 30 mboolem lu doomi soxna war xam ci diggante asamaan ak suuf penkook sowu Saalum ak gànnaar Serigne Saliou fekk na ko ci 1930 radiyallahu taala anhu je rappelle maa ngi ànd maalik Malick Fall ñu seet si Mbacke euh, sëñ xam nga Serigne Saliou euh, ni nga wax ni dafa teel a yittewoo xam-xam wax nga ni euh, Hamid Sow moomu jàngal na ko astrologie ak ak xam-xamu géographie alors euh, ba taxoon mu yittewoo samp ay daara sëriñ bi kañ la samp daara ak fan la ko njëkk a sanc jërëjëf ci laaj bu am solo boobu nga laaj sëriñ Saaliw ku teel a sanc daara la dafa doonoon cëram doonoon mission doonoon liggéey boo xam ne teel naa xam ne moom la ko sëñ Tuubaa di liggéeyloo mooy defar nit maanaam tabax doomu aadama li gën a jafe ci àddina engagement boobu la Serigne Saliou defoon sëñ Saliou mi ngi sanc daara l'âge de 16 ci fukki atam ak juróom-benn dëppoog 1931 ci la sëriñ Saliou Mbacke njëkk a sanc daara waaw mu jugee ci xamit ci la jël laay joojee suñu borom di wax ni fegal leen seen bopp sawara fegal ko seen wu ñooñ wa ahlikum naara maanaam fegal leen seen bopp sawara fegal ko seenu ñoñ ci li Serigne Saliou Mbacké taxaw nag ngir bëgg a fegal boppam sawara fegal ko ñu maanaam jamonoom loolu tax na ci li njëkk a sanc daara dëkk bu ñax ndukk man jeng ca mbaakool maanaam foofu nag damay faral di wax ni damaa xamul ne ba xam dañoo jël suuf si abal ko ko wa ilaa moom moo ñëw ñu dogal ko fa suuf mu bay waaye amaana lu mën a am mooy cil ma xam mbaakool dëkk bu ñax ndukk man jeng fële sëñ Saliou Mbacke njëkk a sànce daara l'âge de 16 ans maanaam fukki at ak juróom-benn ci la Serigne Saliou Mbacke njëkk a sànci daara Thiel ma xam Mbackool dëkk bu ñax Ndoukoumane Dieng ci fukki kilo gerte ak ñett 13 kilos fukki kilo gerte ak ñett ci la njëkk bay ci biir suuf ak ak ak juróom-ñaari donga Serigne Mor Ndiaye Serigne Makhtar Diaw Daouda Sall Mor Ndiaye nii ne. sëñ mat sekki taq yi maanaam juróom benn dongo yi la sëñ Saliou Mbacke njëkk a àndal ca tool boobu tool boobu it doonoon tool bu yàlla barkeel maanaam bay na ko yàlla barkeel ko dëkk boobu mii ni ñu woon sëñ Saliou waaye liñ daan naatalee sëñ Saliou mooy ani ki fi bayoon maanaam dugub ju bari ja ak sëb mu nangu ma noonu lañ ko daan naatale ba mbay ma ñoree barkeel da ciy buddi ay gooñ ay gooñ def ko ci saaku jox ko taalibeem bu ñuy wax Baye Modou Sakho ne ko nañ dem tindoo di mayti ko Cheikh keroog bi mu ñëwee ci Cheikh Moustapha Tindodi ne ko bay naa tool waaye jébbal naa la tool bi ñaari doomu gerte ci Serigne Saliou xolli seq ko da koo buusu yabbi ko gallax ndi ko yabbi daal ne aram na ci man ngir jébbal naa ko Cheikh Moustapha boobu fukki at ak juróom benn la am ci fukki atam ak juróom-ñaar mu ñëw dëkk bu ñax kantongu kayal kayal dog la fa suuf suñu wax neexaan bay fa dugub ju bari mu doon ñaari sàqu fukk lafa fa lépp sëriñ Saliou da koo yët Cheikh Moustapha al Karim xista bii ñuy dégg ci diggante Cheikh Moustapha ci kërug nguur gi kërug nguur gi taalibeem Cheikh Moustapha moo ko jëloon jox ko Cheikh Moustapha addiya Cheikh Moustapha Mbacke jël kër ga ci xista bii ngeen di dégg waxal ñoo bokk baay ma jox la kër ga ci mbuur mu yëkkati kër ga jox ko Serigne Saliou Serigne Saliou bu daan dox ci yoon daawul jaar ci tëli ay xàll la daan am moom sëñ bi daa masa a mbuur jëm Cees bi muy ñëw ba got naaj wa tàng xabaan mu ñaanu kendal ak yendu magi got yo dalal ko keroog ba muy laxas di dem daa gaaral magi got ya xanaa bëgg leen dëkk ak man keroog góor gu ñax baay mbay fay moo yooxu daa di ko ne xakay mbàkke yow day ku mën a jot sa jëmm ji dëkk moomu ko gënal mu ne ko man day bëgg na ma dëkk ak keroog baay mbay fay moo simpi néegam sampal ko ko Serigne Saliou wuyu la aw yoonam wàññeeku samp got got mi ko samp l'âge de 19 ans maanaam maanaam 1934 ci la Serigne Saliou Mbacke sanc got ak xabaan doonoon tund woo xam ne lu ci ëpp borom got ak xabaan mi ngi ko samp 1934 mu am 19 ans lam fa njëkk a bay mbayu saar mbayu lëjum bi mu ñoree da koo def ci otox bu ñuy wax 46 yéeti ko Cheikh Moustapha Al Karim mboolem tund woowu lu ci ëpp ay séeréer catholique lañ ñëwoon waaye waaye waaye yërmandey sëriñ Saliou ak baaxug sëñ Saliou ak xettalaa gi sëñ Saliou Mbàkke doon tax na dëkk boobee lu ci lu ci bëree bëri sëñ Saliou tuubal ni leen fu ñuy wax Mbodjeen Ndiireen Kër Cheikh Ma Diop dafa am benn séeréer ba dëkkoon dëkk bu ñax kibik séeréeru catholique la waaye bi mu joxee boppam sëñ Saliou da ko wax ñaar Mbàkke dama laa jibbal sama bopp waaye Mbàkke su ma faatoo nag ma taxaw baat boobu la wax sëriñ Saliou su ma faatoo nag ma taxaw daa de gaaral dongay ni leen bés bu ngeen déggee na faatu naa su dee bëccëg bu ma yendu ci kër gi waaye bu dee guddi it bu ma fa fanaan pour wax la ni Serigne Saliou ko am kóllëre la bi yàlla dogalee mu wàcc liggéey donga yëg ko takki sareet teg ko ci andi ko ci daara ci booba addina melut nii booba téléphone amut booba jamono daal melut nii bi ko dongay jëlee teg ko ci barabu wàccaay yi daal ne bu ñu jullee timis ba noppi nañ ko taxaw booba dem Touba yombut waaye kenn du sëriñ Saliou te baatinu Sëñ Saliou doon la doy war biñ demee ba julli timis ba noppi war koo taxawu am ku ne seen naa ay lumière de nañ xaar lumière yooyu lu mu ñu jékki-jékki xaar lumière yi li gën a yéeme mooy bi oto bee ne deret Sëñ Saliou wàcc oto bi kenn yëgalu ko ko ci wàllu saayir kenn bindub leetar ku fa dem waaye li gën a yéeme bañ nee buñ jullee timis ba noppi nañ ko taxaw bañ demee ba taxaw des si Serigne Saliou moo ay lumière yéen seen oto bi la bam ne bëri des si Serigne Saliou tijji taxawu ko jullee ko jébbal ko boromam loolu bokk na ci kulle rek Serigne Saliou kon dëkk boobu la fa lépp sëñ Saliou mooy tundu jawaasoo ma la wax ay séréli catholique dafa am dafa amoon benn waay ju yéeme sëñ Saliou da ko yar Baye Modou Sakho mi ma wax ku yéeme woon la sëñ Saliou ko mu ñëw Ndakaaru bi Baye Modou Sakho ñëwee Ndakaaru di yëngu ba am bés mu jóge ci cant jaar ci barab barab boobee menn moom lañ ma sa gis ku fa ma sa jaar dese bakkanam waaw waaye ku fa ma sa jaar rek dangay wàcc bi fa jaaree ñu jàpp ko biñ ko jàppee fuyete ko fekkuñu ci moom dara am ku ne rey leen ko ñu naa ah, bu leen ko rey walla balaa ngeen koo rey ne nag ba bind bataaxal tëkku ci dënnam ngir buñ ko faatee ku ñëw jàng leetar bi xam fa ngeen fan lañ ko jëmee mu ne loolu jaru ko de man Baye Modou Sakho laa tudd doon taalibe Cheikh Saliou su ngeen ma faatee fu ñu dégg ne la maanaam rey nañ taalibe Serigne Saliou bu ñu wax Baye Modou Sakho danañ mën a taxaw waaje na ko loo wax mu ne ko Serigne Saliou mu ne ko ba ma dalee faat bakkanu doomu aadama ba tey maa ngi dégg turu seriñ Saliou xanaa xamoo ne bu yàlla doon dogal ci may tuub ci jëmu joojee laay jaar waaye baatinu Serigne Saliou wàllu na ko bi muy tuub xabaan la fekk Serigne Saliou wax ko fi mu jaar fépp wax ko ci ñaawte yi mu def waaye sëñ Saliou da kon diw mu ne ko Mbàkke mu ne ko bu la wëree ni tuub nga am na suñu borom jéggal na la daa di ko ne sayyidatuna Hindu keroog ba muy lekk xolo ko xam sa ba ci mbañal la ko jaarale te looloo ko mujj wàllu bu la wëree ni tuub nga na suñu borom jéggal na la mujj na doon jàngalekatub alxuraan ba bi muy wàcc liggéey ci biir daaraam la wàcc liggéey daara ji di wéy loolu bokk na ci mandargam texe loolo bokk na ci xarbaax yi Serigne Saliou kon daal nga résumé wax ji mas a bay jébbale Cheikh Moustapha Karim radiyallahu taala anhu moom sëñ Salim. kay gis nga ko kon euh, Malick sëñ Assane fi mu nekk nii nag moom wax dëgg yàlla euh, niveau bi yéeg na macha allah niveau bi yéeg na Cheikh Salihou Mbacké la ñuy waxtaanee ci ndindi Actu TV euh, sëñ Assane kon nag gis nga ko sanc comme ni nga ko dalee ca ci Mbaakol ba ni ba ni mu ñëwee foofu nga xam ni moo di Mbuur ndeysaan ak euh, nam fa nekkandoo woon ak nit ñooñu nga xam ni xëy na nekkuñu ci lislaam ba mu jot faa tuubal ñu bari def fa liggéey bu rëy rëy Cheikh Saalihu Mbàkke nag xam nañ ni comme ni ñu ko junjee sànq ci introduction bi 1990 la ñëw ci xilaafa gi maanaam euh, mu nekk cinquième xalifu Serigne Touba jamono jooju ñëw na euh, fekk na Serigne Abdul Xaadir mi nga xam moo nekkoon imaamu jamono doon fi soog a jógee moom nag mu ñëw ni lu dul lislaam aw ma defar aw ma yàq duma ci digle duma ci tere noonu la fi nekkee ba ni mu fi jógee 2007 sëñ bi nga ñëwal ñu foofu ak digganteem ak Cheikh Béthio Thioune. jërëjëf sëñ Saaliwu doomi Serigne Touba yëpp da na a bëggoon fu mu mas gis doomi Sëñ Touba fàtte ne jëmmam tal ko. fépp fu mu mas a jotaay ak doomi Serigne tubaa moom sëñ Saliou jumu mag dangay ngay foog ne koo ko mag ngir dabu gim daan dabu ci ñoom ngërëmal Cheikhul Khadim moom sëñ Saliou daara yi mu sanc bari na ndax toll nañ ci ñaar fukki daara ak juróom-ñett wala lu ko ëpp moom sëñ Saliou te mboolem lum ca mas a ñorelee rek jébbal na ko ki fi nekkal Cheikhul Khadim dalee ko ci Cheikh Moustapha mi ma wax ba ci Cheikh Abdoul Khadr mi fi mujj. di doomi Serigne Touba ñooñu ñëpp nag kenn ku ci nekk Serigne Saliou liggéeyal na la ba làq sa ngërëm daam wax joo xam ne dama koy faral di wax doomi Serigne Touba ju ne Serigne Saliou liggéeyal na la lu la sabtaaw liggéeyalul doomi Cheikhul Khadim ju ne rek Serigne Saliou liggéeyal na la lu la sabtaaw liggéeyalul sab donga ba nga gën a gërëm ba doon sam Cheikh Ibrahima Fall. Serigne Saliou jëfal na la lu la kookee jëfalu mu wëlbatiku nag liggéeyal Seexul Xadim liggéey boo xam ne fekku fi kenn ba kenn du ko fay kon mooy ki wuutu sëñ Touba wuutu waale Serigne Touba la nekkoon ca doom ya nekk ci moom la nekkoon ci sëñ Touba nekk ci moom ba noppi mu toog moom Serigne Saliou di Seexul Xadim sëñ Saliou bi muy jot xilaafa gi fekk na mu sanc daara yu bari ndax ku sanc daara 1931 ba le 13 mai 1990 bi ngay jot xilaaf mu rit l'âge de 65 ans maanaam l'âge de 65 ans ci la Serigne Saliou jot xilaafa gi bi mu koy jot moom sëñ Saliou booba ay atambari bari na 65 ans booba booba booba booba booba mag la moom sëñ Saliou kon bi yàlla dogalee mu jot xilaafa gi le 13 mai 1990 sëñ Saliou daa rassemblé waat murit yi ci lu bare bare bare bari ci ak dundam moom Serigne Saliou misaal mi ma ciy joxe mooy mooy bis bi Serigne Abdoul Khadr Mbacké wàccee liggéey ci la Serigne Saliou jot xilaafa jot xilaafa gi yàlla dogal ci la jotee xel kom jaaga xel kom ci jamonoy Abdou Diouf ci la saali Saliou jot xilaafa gi waaye bi mu ko jotee itam ñu dogal ko ko mu doon quarante six mille hectares ñeent fukki junniy hectares ak juróom-benn sëñ Saliou toj ko waaye bi mu ko tojee itam dañuy jox leen ma ndaw ñi ma def ca ñoom le Serigne Touba Khadim Rasoul doon def ca mag ña waaye donte yeyewuma ko man Serigne Saliou Mbacké dinaa ko barkeeloo yàlla dogal kàddoom googu barkeel lool maanaam jël seenu njaboot joxe ko Serigne Saliou mu def fa fukki daara ak juróom daara ju nekk di bay mbay mu baree bari maanaam mbay may jóge xel kom jéggi na dayoo te lépp lu mas a bay moom Serigne Saliou jox na ko itam ki fi nekkal Serigne Touba ba ñu ñëpp demee daa wëlbatiku nag moom Serigne Saliou lu mu bay séddale ko njabootug Serigne Touba gi muy sëti Serigne Touba yi moom Serigne Saliou xanaa xamoo ni bi mu jotee xilaafa gi doomi Serigne tubaa ju ne maanaam ku doomi sëñ Tuubaa jur bi mu koy doog jot boo dee góor da nga am million boo dee jigéen am téeméeri junni ñoom ñëpp ba ñëpp daj at mu jot noonee la daan def waaw ku doomi sëñ Tuubaa jur surtout sëñ bu ne boo dee góor ca tàmbalika da am million boo dee jigéen am téeméeri junni ñu koy dox ba mu yàgg maanaam góor am fukki million jigéen am juróomi million at mu nekk Cheikh Mourtala at mu nekk sëñ Saliou daan na ko jox téeméeri million ak ñaar fukk at mu jot ba am na bés mu ne bàyyi Jaw mu ne ko Mbakke mu ne ko neel sëñ Saliou fa ma sëñ Tuubaa waroon a taxawee sëñ Saliou taxawee na ko fa mu jugi nag saa bu yóbbee addiyee ji muy téeméeri million geeg ñaar fukk at mu jot de sëñ Mourtala daan na ko wax ni boo demee ne sëñ Saliou yàlla gis na ko mu jig lool la koy wax mu jig it surtout Serigne Touba bu ne maanaam mu gi daan nga am ñaar fukki million boo dee góor boo dee jigéen am fukki million ñoom ñëpp at mu jot la daan ñëw ngir sëñ Touba da ko daan defit da ko daan séddali njabootug sëñ Touba gi ndax daan na leen wax ne bu fi seen waajur yi newoon noonee la noonee noonee noonee laa ko doon bokk ak ñoom kon barke bi ko sëñ Touba joxoon moom Serigne Saliou da koo bokk ñëpp nga laaj ma léegi diggam ak sëriñ Béthio sëriñ Béthio diggam ak Serigne Saliou diggante bu jan la te sëñ fàgguteefu sëriñ Tuubaa la muy fàgguteefu sëriñ Saliou sëriñ Saliou it bëggaloon ko boppam lool def ci moom it li muy def ci moom ndax sëñ Béthio léeg-léeg mu jëf-jëf joo xam ne dalay lay wóor ni lii du jëfi nit te sëñ Tuubaa bu li liggéeyloo jumtukaay ya ngi koy liggéeyloo sëñ Tuubaa koy jox kon moom bi ko sëriñ Saliou liggéey liggéeyloo maanaam jumtukaay ya ngi koy liggéeyloo sëriñ Saliou woo ko jox mu am tawféexu nag lu mas a ñëw mu delloowaat lépp ci sëriñ Saliou te mas naa dégg ci ko baax mu ne ma sëriñ Saliou nee na ko Béthio day ñëpp nu mu mel man la soob daan ne fa mu toll it man la soob daan ne beeco lu mu wax maa ko ko wax loolu kilifa gu baax koo xam ne sëriñ Saliou woo ko yar ñu koy wax Gora Diop nekkoon ci kër Serigne Saliou ma sama nettali loolu kon ñuy ziyaar it tawam bi nga xam ne mooy Serigne gol Goltapé taxawaay bii mu taxaw ci diggante moom ak sëriñ mu taxaa waaye diggante it sëriñ seex mu sëriñ Saliou bu yàggul dem na lagan barab bu Serigne Cheikh nekk Serigne Saliou Goltapé fekk na ko fa te Serigne daan na wax ne yoonu murit ndigal ko sas ndigal moo ko sos te gis nañ ndigal loolee Serigne Saliou Gueule Tapée dégg ak ni mu toppee Serigne Cheikh kon nag moom it dañ koy ñaanal di ñaanal mboolem njabootug Serigne Béthio gi topp ci ginnaawam buñ jëlee Serigne Saliou député jël Serigne Saliou euh, euh, Midadi jël Seydina jël mboolem njabootug Serigne Béthio gi topp ci ginnaawam yor ji saxaar nag na ko Serigne Saliou daan waxee ni yoonu murit doole jom masaam ji koy saxaar a ko ko may gis nañ ko ci. kon topp gi ñu topp seen mag maanaam sëñ Saliou Gueule Tapée loolu yàlla yàgg ñoo ngi leen ciy encouragé di leen siyaar ñoom it di siyaar mboolem njabootu sëriñ Béthio gépp radiyallahu taala waaw xel comme moom dëkkub leer la ndax wax naa ko ci ay barab yu fasanti ko sëriñ Saliou daan woon ku ma furus ta fekk rusuma laa teg ci loxo loxoy sëñ Touba daan ne su ma yëgoon ni ñëpp dugg nañ xel comme danaa ko bàyyee woote te xam ne ñëpp mucc nañ ci sa daan ne du sama bëgg bëggu sëñ Touba la te bam ko jotee it ay daara la fa def daara ju nekk doomi sëñ Tuubaa ju mas a sanc wu dëkk jël na dëkk woo rafaatale ko xel xelkom daarul moxti daaru salaam daaru euh, daarul minan daarul mannaan umul xora mbooleem ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci yi nga xam ne ñoo bokk sëñ Tuubaa seeni turi dëkk sax sëñ Saaliw indi na ko xelkom yàlla dogalit mu sanc ko la fa daan ñoree lépp sëñ Saaliw daan ko def ci liggéey sëñ Tuubaa bi dafa am bés kenn ci mag ñi muy bàyyi Maxtaar Jaxate ñoo ngi koy ziar di baax Baye Makhtar di ku gëm Serigne Saliou Baye Makhtar jaxate di jëmm joo xam ne wax na ma ci làmmiñam bés ba ma ñàkkee Baye jàpp ma ne ñàkk na Baye ñàkk naa Baye ndax Serigne Saliou moo ne woon Makhtar mu na ko Mbàkke mu ne ko maay sa ndey maay sa Baye te ko Serigne Saliou waxee itam waxu ko moom Serigne Saliou jëf waaye da koo jëf ci Serigne Makhtar jaxate daal ko ne Makhtar mu ne ko Mbàkke keroog ba wajuram làqoo Serigne Saliou da ko ne ñàkkoo maa ñàkk Baye Makhtar Diakhaté wax na ma ci làmmiñam le 28 décembre 2007 keroog bañ ko taggee Serigne Saliou Baye Makhtar Diakhaté wax na ma ci làmmiñam keroog laa ñàkk keroog laa xam ne jirim laa wax na ma ci làmmiñam Serigne Saliou nee na ko Makhtar mu na ko mbakke ndax nee na damaa toog ak Serigne Saliou ci kër gi ci jantu bi ma toogee sëriñ bi ba waxtu mos dara jot mu wóor ma ni maanaam kër gi du njëlu te gis naa keesu xaalis gi maanaam. gaal gi nga xam ne xaalis bi jëm ci liggéey bee ci jëm ma ne ko Mbàkke nañ jël junni njëloo ko ci kër gi sëñ Saaliw ne ko Maxtaar mu ne ko Mbàkke mu ne ko addiyee yi ak ñaqi murid yi dama koo ñemewut li gaa yi gën a ñeme ci jamono ji mooy liggéeyloo murid yi teg ko ci sa bakkan wala ji jël seen addiyee di ko lekk loolu la sëñ Saaliw gënoon a ragal ci àddina mu ne ko Maxtaar mu ne ko Mbàkke mu ne ko ñaqi taalibe yi ak addiyee taalibe yi dama ko ñemewut léeg-léeg ab taalibe day yëkkati addiyee jox la ñaan ca addiye ji ba tufli yëkkati jox la daa di ko maxtaar mën nañ cee jël junni njëlu beneen junni ñëw ñu def ko ca waaye tuflit googee mu tufli ci addiyam jooje fan laa koy jëlee kon moom dafa reserve woon lépp lu daan jëm ci liggéey liggéeyub sëñ Tubaa sëñ Saliou bakkanam la ci tegal këram daan nañ fande te gaal gi fees de la xaalis te ñimeewu koo laal ndax ñaqi taalibe yi la te ci liggéeyub sëñ Tubaa bi la jëm sëriñ Fallou Mbacke mës na koo sas sëñ Saliou dajale addiye ji di ko yëtti sëñ fallu kenn ci mag ñi ne ko Mbàkke tee ngaa jël bi yi yóbbul sëñ Fallou jël weccet yi bàyyi ko ci kër gi paset yi ngir ñu dimbali koo ko ci ci ci kër gi sëñ Saliou da ko ni diw mu ne ko Mbàkke borom junni bii borom këyit yi këyit bi la am borom dërëm bi dërëm bi la am su ma jëlee junni yi këyit yi yóbbul sëñ Fallou mu def ci mu def ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi waaw junni bi dërëm yi ma bàyyi ko ci kër gi ëllëg yomal xëyam bu ma dajeeg borom dërëm bi lan laa koy lay ci sëñ Tuubaa kon ku ragaloon ñaq mooy Serigne Saliou lu ma sa ñëw def na ko ci liggéey bi sëñ Tuubaa kon bés bii ñu koy fàttaliku muy le 27 décembre 2007 la ñu Serigne Saliou Mbacke tàggoon dem àjjana bés bu tiis bés bu metti bés boo xam ne 1927. gi ñu Serigne Touba tàggu woon addina mel ni lu maanaam asamaan seeg ak suuf si mel ni luy dalante kenn xàmmeetul kenn maanaam dem googee muy 1927 2007 it loolu dañoo gar ci Serigne Saliou muy le 27 décembre 2007 la ñu Serigne Saliou Mbacke ñibbi tàggu ñibbi àjjana bés bu tiis bës bu metti bés boo xam ne indi na gëlëmte bës boo xam ne asamaan ak suuf si ak njanaaw yi du ñu fàtte demuk Serigne Saliou kon bés bii ñu koy fàttaliku. dara yàllu ci jàngal Qur'an jàng xasida togg joxe ñaan yool bi mu fekki sëriñ Saliou ndax ku mel noonu ku ko ñàkk ci àddina da ko yëg ndax damay wax ni feebar bii xew muy corona daa bàyyi ba Serigne Saliou dem corona doog a ñëw waaw ndax corona yebul Serigne Saliou jamonoy corona nga xam ne li mu faat ci réew mi corona rëyu ko corona li mu faat corona rëyu ko te at man fi fekkee Serigne Saliou déegi bari sëñ Saliou daa ñëw ba daaray njurul jël am mbubb moo xam ne ba Bassirou Sarr jaamu Cheikhul Khadim moo ko joxoon Serigne Saliou sëñ saaliw jël mbubb mi bàyyi ko ca daaray njurul keroog bi déegi bare feebar bi bari Serigne Saliou daa jël mbubb mi xooj ko ci paani ndox daan na maa ngi ñaan ci barkeb dongab terbiye bu liggéeyal sëriñam ba mu gërëm ko maanaam corona bi na fi maanaam corona bi na fi am keroog la feebar bi am kon corona daa bàyyi ba Serigne Saliou dem mu doog a ñëw waaye Serigne Saliou benn jàngoro bu ma sa yëpp sëñ Saliou amut ndax lu jàngoro ma sa rëy rëy maa ngi gën ci sëñ Touba corona bi bu fu fekkoon sëñ Saliou te mu war faat ñëpp sëñ Saliou dana ko dékku teg ko ci jëm kon nag yàlla sunu borom dolli leeram yeesal yërmande ci kawam moom Serigne Saliou xool yeeg xalaat yeeg lépp dañu dañ di ko fàttaliku radiyallahu taala Mhm. Euh, euh, a fësal yan la doon gën a fësal ak euh, jërëjëf sëñ Saliou moom maanaam am am xasida la bëggoon am njàng njàngum xasida la bëggoon lool nit daan nañ jàng léegi léeg kuréel yi ko daan jàngal ci biiru këram ba mu yëkkati reeru bopp jox leen reeru boppam jox leen yaram wi daan na sutante lool mu dégg njàng mu neex mu nekkaat ci itteem moom sëñ Saliou waaye xaside yi xaside gi mu gënoon a fonk bëggal ko boppam moom sëñ Saliou mooy xaside nuuru daare ni lim daan màgget màgget saa bu ma a xëy daan na jàng fukki isi bu alxuraan moom sëñ Saliou daan na ci nuuru daare ni ba mu jeex mu jug dund gi daan na wax ne nañ ko koy xaajal ndax daa diis ci moom waaye njàngum xasida moom la bëggoon ndax mboolem ku jaar ci daaram am na xasida guñ daan wax sas wi sas wi bari na ay xasida yu ci nekk muqaddimaat xasida gës bu xasida yu yëpp ma ngi ci waaye daan na wax ni képp ku ko mokkal ba tari ko wàccoo nga ak man mboolem ku jaar ci daaram xam nga sas wi kon njàngum xasida moom Serigne Saliou da koo bëggoon kon ku mel noonu bu yàlla dogalee li mu dund ci ayaat muy l'âge de 92 ans tàgguñu le vingt maanaam la la vingt sept décembre 2007 maanaam xibaar bi bi muy tas jaami yàlla yi di ko yëg moo tomboog le 28 décembre moo tax ñu jàpp ne le 28 mais le 27 fagaroog ajjuma ci la Serigne Saliou wuy ji boromam muy bés bu ajjuma biñ koy yëg maanaam minuit wala 2 heures du matin ci lañ dugg samedi xibaar gi jot mooy dëppoog le 28 kon nag référence gi ñu war a jël ci sëñ Saliou mooy ñu roy ay jikko sëñ Saliou modèle la. modèle la boo xam ne dañ koo war a teg jàng ko jàngat ko sëñ Saliou ki gëm yàlla mën naa roy ci moom ki weddi yàlla mën naa roy ci sëñ Saliou ndax jikkooy makaarimal axlaaq gépp sëñ Saliou koo tegoon moom sëñ Saliou kon nañu roy ci moom ci mbaax waaye roy ci moom ci yërmande waaye roy ci moom di jëf te yàlla tax sëñ nañu roy ci moom ci jëf yàlla tax nañu roy ci moom yërmande ma ni état bi nañu yërëmaat mindee fii na sëñ Saliou yërëmee woon nit ñi jamono ji sonn nañ xeef gi metti na kon na état bi dellu siwaat yërmande ci population bi ndax lu am solo la sëñ Saliou daa yërëmoon ñëpp ba bu daan ñaan xasida gam daan daanalee mooy rab yi saa bu commencé na jàng ba yeggal rongo ñi dina tuuru kon nañu royaat ci moom ay jikko royaat ci moom it maanaam yërmande royaat ci moom it jariñ mindee fii te bañ leen a lor daa waxoon ni maanaam ak xamadi xamadi mi ngi tàmbalee ci yar koo du dundal mooy li dal réew mi de xamadi mi ngi tàmbalee ci yar koo dundal état bii bëgg a yar nit ñi dundaluñ leen nañ leen war a dundalee ba noppi bëgg leen a yar sëñ Saliou nee na ci la xamadi tàmbalee nit soo ko bëggee yar ba yaru da koy dundal maanaam da koy jariñ kon mënuñoo ñàkk bañ a yërëm nit ñi ba noppi bëgg leen a yar kon état bi na bàyyi xel loolu xamadi mi ngi tàmbalee ci bëgg a yar koo dul jar maanaam koo dul dundal nit ki mënoo koo dundal yërëmoo ko bëgg koo yar sëñ Saliou nee na fa la xamadi tàmbalee loolu nag maa ngi ciy interpellé état bii ñu yërëm nit ñi sëñ Saliou da ko daan wax daal ne loo yor bokk koog nit ñi te li lu ñu yor nga bakkoog ñoom sëñ Saliou nee na daa mën may nit lu ne nañ yërëm mbindeef fii dëkk bi metti na sonn nañ nañ yërëm nit nit ñi kenn ku nekk nag saa boo jàppee ne yow la bés dana ñëw ñu yeew la ba nga ne ngoddu ma ni ñi état bii laa wax ñi ciy nekk di buuma ko bumi kenn ku ci nekk bés dana ñëw ñu takk la ba nga ne ngoddu saañ say bakkan tur boo am ñu saañ ko wallahi sa làmmiñ wu selaw sa làmmiñ wu réy wa dana ne selaw sa dox bu bari ba dana ne tekk sa xumbaay ba da nga wiit nañ ko bàyyi xel moomu ñu nit ñi yàllaa ñu moom te yàlla ñuy dundal sëriñ Saliou dane nit ku nekk ñaari biir la ko suñu borom jox biirub jëmmam biirub bàmmelam biirub jëmmam bu mu doon ittiim la cay dem yàlla waralu na ko ko biirub bàmmelam na doon ittiim ngir lu mu jëful da ko fekk kon nag ñoo ngi leen di ziar di leen ndokkeel di ñaanal soxla si suñu borom euh, gën ko teg loxo ci barkeb maamam sëriñ fan yéen it techniciens yi suñu borom guddal seenu fan wéral leen li ngeen bëgg ci siit bi lépp yàlla defal leen ci kattan wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñoo ngi siyaarit barab bii ñu nekk di Mamadou Kassé di ku baax di taalibe maam na Daarul ma Mannaan gëm ko lool ak soxnaam Anta mi nga xam ne Serigne Saliou rekk la bëgg ak seen waajur wii di soxna mère Khady kase di leen ñaanal yàlla gën a guddal seenu fan gën a mottali seen i yéene seen i mébét ci barkeb Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. waa kay kon nag euh, Malick gis nga ko waxtaan wi amoon na solo. Euh, Serigne assan Mbacké xel koom moom Serigne Saalihu Mbacké moo ñëwoon tey doon ñu waxtaanal ci Cheikh Saalihu Mbacké ndax xam ngeen ni Euh, le 27 nee nañu la fi bàyyi waaye dañuy jàpp bisu 28 bi ndax ca fajar ga bi koy nit ñi yëg ci waxtu woowu la ko nit ñi yëg moo tax nit ñi jàpp 28 bi kon nag àjjuma la ko def waaye nag euh, ca samedi ja la ci nit ñi jot kon nag euh, ñi ngi doon bànneexu lool ci jëmm jooju nga xam ni moom daa mën kanamam mën ginnaawam. booba ba tey bi mu fi jógee léegi buñ ko tuddee rek da ngay gis ni ndaw ñi sax ñi gën a féete ndaw nga xam ni bi mu fiy jógee ay tuut tànk la ñu woon da ngay gis ni que euh, buñ ko tuddee maanaam dañuy dem sax ba féetale ko seen bopp maanaam diw mu sëriñ saaliwu te ñu sax xëy na bi mu fii bàyyi ko boobu ndaw la ñu woon kon nag Mbàkke yow it ñu ngi lay ñaanal suñu borom yokk xam-xam bi gën a guddal saw fan te nga dajeek euh, ngërëmu Cheikhul Xadim euh, mu dëppaloog ngërëmul Cheikh Salihu mbake kon nag sëriñ Assane Mbacke la ñu àndaloon ci Ndindy Actu TV ma àndoon ak Malick Fadal Fall ñu ñëwoon fekk ko fii ci këram kon ci géejawaay di ko gërëm bu baax a baax di euh, gërëm tam ñi nga xam ni euh, ñoo ñu doon topp kon ci émission bi di leen sant bu baax a baax dinañu defaat ak moom yeneen waxtaan dig nañu ko incha allah mu gën a yaatu bu ko defee kon loolu du yàgg dara ci jamono jii di ñëw incha allah euh, ganuk bis bi la woon ngeen àndoon ceeg Ahmed Seck Malick Fadal Fall ñu di leen jox daje kon incha allah euh, ci ay fan yu néew ak geneen gan ci Ndindy Actu TV salaamun minallahi aleykum wa rahmatun minhu taala wa barakatuhu sëñ Saliou seexu seexu seexu Saliou borom jàpp nag mboogal borom daara yi la gang borom umul xuraa borom jannatul maxwa seexu